أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ba tey noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala nu toll ba tey ci suura al araf ci kàttanu borom bi ñuy jël tey ñaari aaya aaya 35 aaya 36 aaya yi nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ciy jàngal ñeenti mbir mbir yooyu ba ca jiitu mooy qatul xujja xujjatu bani aadam bi irsaali rusuli ilayhim sunu borom subhanahu wa taala mooy ki arrêté layu jaam ñi ëllëg yowmal qiyaama kenn du am loo lay sunu borom moo wàññi jaam ñi arrêté seenug lay ëllëg sunu dee ba dékki ba taxaw ci kanamu borom bi kenn du am lay kenn du ne man xawma woon kenn du ne man yëguma kenn du ne man kenn fàttaliwuma kenn du wax ne man xawma woon ne dañoo war a jaamu yàlla loolu nan la ko sunu borom arrêté doomu aadama yi naka la ko leen wàññee mooy bi irsaali rusul ilayhim yàlla dafa yónni ay ndaw ci ñoom mu tax lay jeex na maadaama yonent yi ñëw nan yàlla wàcce ne ay téere amul kenn ci xeet wi ku ñemee taxawati naan ñun xamunu woon ñun de kenn waarunu woon ndax wa in min umma illa xalaa fiha nazir wa laqad baasna fi kulli ummatin rasul xeet bu nekk yàlla yónnee na leen yonent ba ñu nekk cent vingt quatre mille yàlla mu ne amul xeet bu nekk wa in min umma amul benn xeet bu sa xel di dem lu dul illaa xalaa fiha nazir lu dul yàlla ne na yónni naa fa ab fàttalikat yónni naa fa sama yonent bal sax am na ci xeet yoo xam ne yàlla ñaari yonent la fay yónni jàngeen ci yaasin yàlla mu ne fa azzazna alayhim salis ñetteel xolal pour rek fàttali kon ëllëg kenn amul lay ku yeboo rek tey nga xam ne ëllëg amoo loo lay fekkiwu maag kenn waaru maag jotuma mbir meeg loolu jeex na takk ndax lan yonent yi alayhimu salaam seen mission mooy lan fàttali li yàlla bëgg ci ñun ñu def ko ñaareel bi li ñuy jëlee ci aaya yi tey mooy awalu ma yabda'u bihi fi baabi taqwa ashirk bi an yataxalla anhu l insan al mumin awalan yàlla dafa bëgg ci ñun li nu war a njëkk a tàmbali bàyyi ko ci ay jëf mooy bokkaale bokkaale gii nga xam ne tey dafa ferenkulaaw ci sunuy xef mënuñoo def dara lu ñu bokkaale mënuñoo wax lu ñu bokkaale mënuñoo jaamu yàlla lu ñu bokkaale kenn mënta génn ba duggaat dudul bokkaale bokkaale nga ak yàlla doog a ñëw xeet boo xam ne dañoo yaakaar ne bu ñu bokkaalewul seen dara du baax koo wax mu ne yàlla ak sànq damay jàngal xale yi dars boo xam ne musumaa yéemu comme tey ci téere boobu tudd sarxu du'a min al kitaabi wa sunna dama koy jàngal xale yi chaque samedi matin mais tey damaa toll ci bunt boo xam ne mooy sooy ñaan boo bëggee yàlla may la li ngay def pour yàlla may la mu indi ñaar ne ixlaas ak istiqbaalul qibla ne jublul xibla boo ñaanee yàlla dina la may ñaareel bi mooy sellalal ñaan gi ci biir bu muy firi sellalal ñaan gi mu ne xoolal yéeféer yi yéeféer bokkaalekat ku gëmul yàlla muy ñaan yàlla mu sellal yàlla nangul ko yéeféer laa wax bokkaalekat muy ñaan yàlla mu sellal yàlla may ko loolu ñëpp dinañ jomme waaye loolu mu nekkee pourtant du du waxuma sunna de mais alxuraan la alquran moo ko wax wa iza rakibu fil fulka daawullah muxlisina lahu diin ñan la ñan ñooy def loolu mushrikuun bokkaalekat yi ñoom ñooy bokkaale ba dugg ci biir géej xam ne fii jeex na yàlla rek ñu delluwaat jox yàlla mbir mi yàlla nangul leen allahu akbar te yàlla leer na ko ne fa lamma najjaahum ilal barri saam yushrikuun yàlla leer na ko xam na ko moo ko wax waaye terewul xoolal maadaama dugg nañ ci géej gi woo nañ ko yaa rab yaa rab yaa rab mu ne leen labbayka ya abdi léegi nag kon jullit bu gëm yàlla bu sellal kon bu ñaanee yàlla nag yàlla bu nangulee yéefir bu ko xam ne leer na ko ne kii mu ngi nii di ko nangul waaye après day delluwaat kon ki gëm yàlla nag moom jullit bi nag mais chaque jour dañuy wax ne mbir mi ñun la rek ba léegi texte yi moo desee leer ci ñun ba léegi ñun ñooy déngi déngi ci suñuy pas-pas ba léegi ñun ñooy yaakaar ne lii mënta nekk lii mënta am walla walla di def defe li njëkk sant pour ñu bàyyi ko mbokk yi mooy tëndik ko mooy bokkaale bokkaale te lu sew la léeg-léeg nit dafa ne moom du bokkaale fekk moo ngi ci biir néew na nit xëy bu suba ba ngoon bokkaale woo lu dul nga mun a mooy tëndiku lool lu dul nga xam lan mooy xeeti bokkaale yonent bi alayhi salaatu salaam dafa amoon ñaan bu xëy suba mu ne yàlla maa ngi muslu ci yow bokkaale bu ma yëg ak bu ma yëgul bu ma yëg ak bu ma yëgul mën ngaa bokkaale sax te yëgoo ko moo tax Ibrahima pour mu dégager loolu même sax ci feebar mu ne yàlla wa isa maritu yàlla yaa may faj garab gi sax faju ma yow tey bu sa biir maatee ñu ne la jëma nga jënd benn comprimé nga naan ko wér looy wax wallahi al azim gis nga bi ma jëndee garabu sàngam dama ko naan rek ne cocc nga fàtte nga yàlla garab gi moo la faj wala yàlla moo la faj wala Ibrahima mu ne bu ma feebaree yàlla may faj su ma xiifee moo may jox ma lekk su ma maree moo may jox ma naan ñun tey koo fi dajal mu jox la benn liibaru mburu bu am yàpp saw démb de sa waajee ma jox ma reer fàtte nga yàlla garab sàngam bi ma ko naanee laa wér fàtte nga yàlla moo tax affaire yu sew la yonent bi saa salaam mu ne ashirk axfa min dabibi nam la bokkaale moo gën a sew tànki xorondom xorondom mooy mbenentaan bu ñuul kukku boobu di dox ci xeer bu ñuul ci lënd mu guddi ñaata ñuul ñuul la melentaan bi dafa ñuul mu ngi dox ci xeer bu ñuul ci lënd mu guddi ñu ne la xoolal tampon tànk yi wallahi alazim bu doon une heure di bëccëg la ñu ne la xoolal tampon tànk yi doo gis tampon yi wala yonent bi nee na noonu la bokkaale sawee boo tax tey xoolal umma bi xoolal xeet wi wuu li yonent bi saa salaam njëkkoon xeex njëkk déjjiti ci jaam yi mooy bokkaale tey foofu la njëkk a dellu bokkaale guddi bokkaale bëccëg bokkaale suba bokkaale ngoon xeet boo xam ne bokkaale kese kese kese kese muhammad ibnu abdul wahab rahimahullah dafa wax ju garaaw nee na bokkaalekat yi démb yi ñoo gën jullitu tey yi ñu ne ko yow sëriñ bi li nga wax garaaw na de mu ne waaw loolu moo am ñu ne ko lu tax nga wax loolu mu ne bokkaalekat yi démb su mettee dañuy dellu ci yàlla wa iza rakibu fil fulka ah daawullah
muxlisiina lawul diin
kon jeex na fa lamma najjahum ilal barr nag bu leen yàlla musalee ba ñu ñëw ci tefes gi ba ñu nekk ci géej gi géej gi trembale bato bi waaj a këpp ñoom ñëpp ñu ne yaa allah yaa allah yaa allah bi leen yàlla musalee ba ñu ñëw ba ci tefes gi ñu ne fu capitaine bi moo garaaw non bu doon du capitaine bi ñun ñëpp dañuy dee yàlla mu ne waaye jullitu tey yi dañuy bokkaale foofu bu ñu génnee bokkaale ci biir géej gi bu ñu fa nekkoon ñoom du ñu wax yaa allah lu ñu wax yaa cheikh yaa sàmba yaa omar yaa ngañ yaa muudu yaa demb ayna allah bu ñu ñëwee fii daan ne wallaay yow la yaa ma sebe yow la yow la yaa ngi nii yow la gis nga dañuy bokka moo tax mu ne bokkaale kat démb yi ñoo tane jullitu tey yi mën na dëgg ndax yéeféer yi démb su mbir mi mettee nu ñuy def dañuy delloo yàlla ñun nag ñaar yëpp duñ ko jox yàlla ñaar yëpp nit ñi lañ koy jox waaw benn waaye waxoon na sëriñam wallaahi asim laa wax oto bi bi mu këppoo yow laa gis nga téyeku ndeysaan wala mu ne ko déedéet mu ne ko wallaahi aha aha ndeysaan xam nga sëriñ bi li ko dal ñi may waxal fi am na ñu ko xam am na ñu xam fi mu dëkk am na ñu xam jàkk ji mu doon jiite moom moom ñu waxoon oto bi bi mu këppee yaa ko téye xam nga lu ko dal mu tukki di ñibbisi fii ci pédiatrie bii muy wàcc ndekkee oto bi droitewul beneen oto daw ñëw tànc ko tànk bi dagg ñu yóbbu hôpital ñu dagg tànk bi mu nekk handicapé mu ñibbi jàkka ja kenn jiiteetu fa kër gaa nga ne ñu ràpp tëj léegi moom bu fekkee da doon téye ay oto di téye oto taalibe yi taalibe yi di rëcc lu taxoon moom téyewul oto bu ko bu doon ñëw boobu di dagg tànk bi hmm? yàlla da ko doon wax ne du yow waaye man la mbokki jullit yi li ñu yàlla njëkk a tere te ñu war koo moytandiku mooy bokkaale mu nekk bakkaar bu rëy bu garaaw boo xam ne yàlla du ko baale te tey daanaka ñun ñii ñëpp ci la ñuy yenn ci la ñuy fanaan tibb suufu bàmmeel yi di raay ay xeer di raay ay photo di mbëkk ay miir di def yu kenn xamul bokkaale boo xam ne xeet wi tey nit ñi lànk nañ lu dul nit non subhanallah da ngay gis ci biir bàmmeel sax ñuy dugal nit sax nga gis kuy bokkaale ñuy dugal nit ci bàmmeel laa nga gis kuy bokkaale ku jëm dañoo lànk ne yàlla lim moom moom kese duñ ko ko jox foog ñu boole ci ay doomu aadama te leer nañ ne doomu aadama yi lii ñu leen di waxal mënuñu ko te du ñoom mais ñun ñoo lànk loolu ne fokk ñu bokkaale ak yàlla jullit li mu war a njëkk a def mooy bi an yataxalla anhu l insaan al mumin awalan balaa ngay def dara dindil bokkaale ba pare ci sa bopp yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu mu ñëwee màkka yàlla yónni ko li mu njëkk a déjjati ci xoli jaami yàlla yi mooy lan bokkaale bokkaale kese la leen njëkk a tere moo tax su ngeen jàngee alxuraan da ngeen di fekk 114 saar la 114 saar 92 yëpp màkka la wàcc 92 yëpp tawhid la ñuy jàngale nañu kennal yàlla nañu wéetal yàlla buñ ko utal ndend buñ ko bokkaale buñ ko buñ ko buñ ko loolu rek ngay fekk nañu bàyyi bokkaale 22 ñoo wàcc Médine yooyu ñoo indi sharia yi leneen lépp 92 mu ngi wàcc màkk lépp lan lay jàngale yàlla kenn la kennal leen yàlla kennal leen yàlla wéetal leen yàlla bàyyi leen bokkaale bàyyi leen dendale yàlla ak bàyyi leen wax yàlla ak su neexee yàlla ak ah mais ñun tey dañoo lànk loolu dullit dafa war a setal jëmmam setal xolam setal boppam ci bàkkaar bi nga xam ne ba ñu laajee yonent bi ban bàkkaar moo gën a rëy ci bàkkaar yi luñ la wax an tajcala lillahi niddan wa huwa xalaqak mooy nga utal yàlla dend te xam nga ne yàlla la bind te suratul baqara lan la yàlla wax fala tajcalu lillahi andaadan wa antum taalamuun ay dafa leer nañ bu leen utal yàlla ndend jamono jooju ngeen koy utal ndend ak moroom xam ngeen ne yàlla du moroom xam ngeen ne yàlla du moroom wantum taalamuun jamono ji ngay wax diw mën na lii wala diw day naaw fii wala diw day plongé wala diw day capté xam nga ne du dëgg xam nga ko mais léegi lu la ci dugal mooy bokkaale ñetteel mooy al islah yakunu bil amali saliha lii ñu yàqoon il faut ñu réparer ko mooy bokkaale gi ñu doon def bidaa yi ñu doon def bokkaale yi ñu doon def bàkkaar yu bëri yii foog ñu bàyyi ko ñu dabaatal ay jëf yu baax moo tax gis nga chaque jour soo defee farata ñu ne la teg ci ay nawaafil su fekkee azaka la ñu ne la sarax nga ci sarax mooy naafilaam su fekkee ramadaan la ñu ne la koori sunna yi mooy naafilaam wër lundi wër jeudi ayaamul biid ah yow mu araf sitta sawaal bu fekkee julli la am nay naafila balaa ngay julli ak boo jullee ba pare maanaam mboolem jaamu yàlla am nay nawaafil yu lay répareel yu nga bàyyi woon démb pour nga dabaatal ko dabaatal googu nag lan lay nekk bil amali saliha ci jëf yu baax yi doomu aadama jëf yi ngay def jëf yu baax moom ngay dabaatalee jëf yu baax yooyu nag du yow yee yaa toog ba caag rek nga ni lii de def lu baax la naa ko def déedéet allati shara'aha Allah jëf yu baax yi nga xam ne yàlla yoonal na ko dafa am yoo xam ne da nga yaakaar ne lu baax la fekk baaxul yow yaa ko baaxal mais baaxul tey nag ñun loolu mooy suñu problème da ngay fekk li nga xam ne moom lañ la wax boo ko defee am tiyaaba wala nga sonn ci nga ni ko fi ñukk tey misaal lay joxe bu ñu jullee gee ba pare nga ñibbi sa kër reer ba pare nga noppalu tuuti nga dem jàpp lal sa sijaada commencé di naafila ñaari rakk sëlmal wala ñeenti rakk sëlmal ah mbokk yi boo defee ñaar rakk yooyu nga sëlmal wala ñeenti rakk yooyu nga sëlmal léegi loo ci am di nga am tiyaaba wala doo am tiyaaba damay laajte ah di nga am tiyaaba ok waaye léegi nag boo wàccee nga ñibbi nga dem reer ba pare nga wut say sabar takk say rajo nga commencé di fecc ba bët set ñaar yi ban moo gën a metti taxaw dinaa fi la ba bët set ak di fecc ba bët set bu gën a metti tey jii ci Sénégal ñii naa fi la guddi ak ñi fecc ñu ëpp lu ngeen tontu voilà ban lañ santaane naa fi la wala fecc leen voilà xoolal mu ngi noonu gis nga tey yi ñu yàlla sant nga xam ne ni mu yombee yeewu fajar dem julli ci jàkk ak yeewu fajar dem géej bu gën a sedd
yow xëj dem jàkka ji.
ñaata ci cey jii ñaata est-ce que amul sax fii ci jàkka ji est-ce que amul ku toog fii sax di tafsir fekk 5 heures du matin mu ngi koy fekki géej muy sport mu romb jàkka bi nit ñi di julli naan ko hayya ala salaa mu burle ñaata ñaata xoolal tey yi yàlla di woote ci yu baax ak nit ñi ndeysaan nit ñuy dawee xoolal jàng alquran yonent bi nee na képp ku jàng benn xaraf ci téere yàlla falahu asaru am saale mu ne laa aqulu alif laam mim xarf walakin alif xarf laamu xarf wa mim xarf soo ne alif nga am fukki tiyaaba nga ni laam am ñaata ñaar fukk nga ni miim am ñaata fanweer fanweer kon boo jàngee baqara ba mu jeex da nga gis tey gaa yi toog
seen portable hmm? loo ci jële parce ba guddi gi jeex ba guddi gi jeex whatsapp ba guddi gi jeex ci ci whatsapp nga fanaan ñii ñu ngi fanaan ci théâtre ñii ñu ngi fanaan ci ay filmu porno wala ab jullit allahu akbar ab jullit bu tëdd nekk ci film porno ba bët set loolu tey ci umma bi du jeex xoolal fan yi Sénégal lan ngeen dégg xeex bi muy góor jigéen yi fii lañu waroon réunion Franc-maçon.
te xoolal moo tax gars yi xaw ma ak ak franc-maçon yi gars yi xeex nañ ba sonn mais ndaw si ñëw na de est-ce que xam ngeen ne ñëw na ñëw na ñëw na bu yàgg ñëw na ba def li muy def suba mu ñibbi ci réew moo xam ne nee nañ quatre-vingt-quinze pour cent musulman ab giil ab franc-maçon ab góor jigéen ñoo di leen financer seen éducation na ñuy jàng li ñuy jàng ngeen defe ne njàng moomu dana jag ngeen defe ne njàng moomu dina baax lan lañ leen di jàngal hmm? ñoo ñëw fii ne dañuy réunion lan la mais xam nga lan mooy wax bi Sénégal mooy li góor gi wax keroog rek ñun ñëpp xam nañ problème bi waaye lan ñoo koy régler mooy wax ji pourtant turc turc bi góor jigéen ñeeg franc-maçon yi ne dañ fay réunion ñuy waaj a teeru ndaw sii nii ndaw sii ñëw Sénégal nii ñu koy waaj a teeru aéroport imaam yi dañoo dem aéroport rek daan ne fii du fi wàcc fi avion bi du fi wàcc ñëwul bi Sénégal benn nit rek mënoon naa wax bu mu fi ñëw rek du ñëw benn nit d'accord ngeen wala d'accord leen lu tax ñooñu duñ wax lu tax ñooñu duñ wax ñun ñëpp waroon nañoo laaj question boobu lu tax ñi war a wax waxuñ ba tey duñu wax te chaque jour soo ne xëy na diw mii dina wax rek bu ñëwee noppi loolu mooy suñu problème cumbur cumbur nag yu ndaw ndawaan yi mel ne nun nekk fii dañuy sonal suñu bopp rek dañuy sonal suñu bopp Euh, tiwo ndox bi bu tojee kenn ku nekk ci ñun soo nee tiwo bi de man du dugg sama kër ndox mi du dugg sama kër d'accord da nga yor peel rek taxaw sa buntu kër ndox mi di ñëw ngay tibb suuf di teg ay saaku ndox mi di la romb ndox mi di la romb ndox mi di la romb ndeysaan bi ma dëkkee gunaas du ma ko fàtte mukk bu asamaan bi xiinee fu ma fu ma nekk damay damay ñibbi damay ñibbi su ma demee ma simmeeku sol sama kilot teg sama peel waaw bu commencé taw rek ma commencé tibb suuf di baare ndox bi benn vendredi ndeysaan du ma ko fàtte ma sangu ba pare fekk mu ngi taw de doon na ba sebet ma war a jiite ji roi Baudouin sangu naa ba pare roi Baudouin laa war a dem ma sol sama yére boobu taw bi taw na ba sabet ma ñëw ba ci bunt kër gi ma taxaw rek ah, ak sama yére yu weex ma dégg kër gi ma dendal miir bi ne rëdëdëdëdëdë dërr ndekee kër gi ma dendal ndox mi dugg na ci hauteur 3 mètres ndox mi dugg na ci kër googu man maa ngi sama kër yëguma lu xew nekk ñooñu tox ñu ngi génne seeni bagage ndox mi dugg na seen kër ba 3 mètres miir bi dox sama digganteeg ñoom jékki-jékki rek ne bëm ma ma ma gestu ma gis sama miiru kër ndox mi di génn ci suuf ci suufu fondement bi di dugg sama biir kër ma ne ma dellu simmeeku keroog vendredi boobu xaw ma waa roi bu dee nuñ jullee de woowuma leen vendredi boobu jumaa jooju julliwuma ko ay 6 heures ci ngoon laa ko julli boole ko tàkkusaan ndax miir bi daanu ndox maa ngi dugg ci kër gi ndox mi attaqué na néeg gi ndox bu am doole ay vague bu bu bu bu bu bu maag waa kër gi yëpp ñu daw jël ay peel di loo teg rek dafa mel ni daf laa wax ne ah yow da ngay font sa bopp parce que ndox mi fële la jóge moo ngi ñëw ba néeg yi fees gaal ma xam ne mënatuma baare ndox mi ma commencé di génne bagage maa ngi génne bagage yi léegi pour bagage balaa bagage yi yàqu parce que mënatuma téye ndox bi gis nga loolu luñ ciy jàng mooy buñ gisee tiwo ndox bu toj au lieu ñu toog suñu buntu kër ku nekk di fatt buntu këram parce que su ma fattee sama buntu kër bu kër kii feesee kër gu ma dendal bu feesee ndox mi sama kër la jëm bu sax sonn kër gële bu feesee bu mbedd mi yëpp feesee kër yi fees yow sa kër kër day fees da ngay jékki-jékki ñun gunaas ñu dëkk gunaas xam ne da ngay jékki-jékki nga defar sa kër ba mu rafet nga def ay karo mu taw ba caaga rek nga gis ndox mi di di tël karo yi naan tëf di génn ci biti di tël karo yi naan la ñun dag ñoo mën a téye ndox mi day mbëkk karo yi tëf nga gis karo bi teggeeku nga gis ndox mi naan lii di génn ci suuf loolu noo koy téye te nag gis nga ndox moom buy génn ba nga repp ba nga bale wala nga fomp pression bi day yokk ndox mi day gën a ñëw soo balee benn paan nga fomp benn paan deuxième bi booy bale deux paan ngay génnee soo génnee deux soo defaat troisième trois ngay génnee noonu lay def ba néeg bi ndox mi yéeg soo arrêté wu li ngay fomp ndox mi day yéeg ba ci say lal duma fàtte mukk am na am na jamono yoo xam ne bu ñuy añ wala xale yi di tëdd ci biti la ñuy yendu bu guddee dama leen di yëkkati nii xuus xuus xuus xuus xuus xuus bañ egg ci lal bi ma tëral leen dellu jëli ñeneen ñi lal bi teg naa ko quatre briques pour mu nekk ci kaw du laal ndox mi quatre briques laa teg teg ci lal bi gis ngeen moo tax sunu borom rek li mu wax mooy dëgg suñu borom mbugalam xejul ci nit bëñ moo gën a tuuti ci yaramu nit bu ko yàlla yëngalee rek nga am problème bëñ moo gën a tuuti lekkal ginaar reereer xar bu ñu lakk naanal lu la neex lekkal firi bu la neex nga tëdd yàlla yëngal bëñ bi rek fàtte nga li nga yendoo woon yépp ndax mettitu bëñ bi su continuer bu continuer bu continuer bu continuer du baax ci yow te moo gën a tuuti ci yaramu nit moo tax jaamu yàlla rek moo ñu jikk def lu baax lu baax loolu nga xam ne nag bu ñu koy def nanu ko yàlla sant ndax loolu moom mooy laabal bakkan yi moo koy setal jaamu yàlla yi ñuy def ci julli ci koor ci ci ci yu baax yi jàng alquran def ay azkar lii mbokk yi mooy setal sunu bakkan moo koy laabal ñeenteel mooy attakzib kal istikbar kilahuma mani min attaqwa wal amalu salih walida ashabuhuma hum ashabu nnar ñaari aaya la ñeenti mbir lañ ciy jàng aaya bu nekk ñaar lañ ciy jàng ñeenteel bi ñuy jàng ci aaya bu mujj bi mooy weddi yàlla gis aaya yàlla yi ne du dëgg yàlla wax lii nga teg ci sa baaraam wala nga teg ci sa tànk jëfe lu la neex weddi ko moog rëyee yem mooy yàlla sant la nga lànk ne defuma ko benn kese la weddi aaya yàlla yi ak rëy ñoo yem benn àtte lañ moo tax ñoom ñaar ñëpp dañuy tere ragal yàlla dañuy tere nit mu def jëf lu baax looloo tax ñaari mbir yooyu ku mu nekk ci yow safara nga jëm mooy lan ñaari lan la rëy ak lan ah ak
weddi ay borom subhanahu wa taala jeex na ak tas ak ak takzib mu nekk kal istikbar moo réye yem ñoom ñaar li ñuy tere mooy ragal yàlla ak jëf-jëf ju baax waaw soo réyee gars yi dañ naan ñeen ñetti raa la ñetti raa ñetti raa la raa raa raa bu njëkk bi mooy réer ñaareel bi mooy rëy ñetteel bi mooy réew foo gis ku réer dafa rëy foo gis ku rëy dafa réew foo gis ku réer dafa rëy foo gis ku réer rek dafa rëy soo ko nee lii mun a xale bu ndaw bi duñ sa morom gis nga de réer moo ko waral gis nga ngand ngandu la xam nga lu muy jur réew ci biir jàkka ji lay nekk di saaga ci biir jàkka ji day nekk di saaga wala di def lu ko neex wala di dafa ne néegam la nekk parce que lu ko waral mooy dafa réer bi mu réeree mu rëy bi mu réyee lu mu jur mooy réew kon doomu ndey yi mbokk yi loolu mooy aaya yi ñuy jàng tey noo ngi ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu mu dëgëral sunu làmmiñ ba du ñu génn téeréem bi ma bàyyi cheikh bi incha allah mu jàngal ñu aaya yi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل Mhm.
إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون jazakumullah xeyran allah yubarik fiik man yàlla fay la yow mbokki jullit yi sunu boroom subhanahu wa taala moo ngi nuy woo mu ne haada nida jaiz an yakuna nidaan aama li kulli bani aadam kama huwa zahiru lafz wa anna albashariyata kulluha nudiyat mu ne sunu borom subhanahu wa taala woote bii di yaa bani aadam yéen xeetu doomi aadama yi képp ku aadama jur rek yaa ngi ci biir yaa bani aadam ku weex ku ñuul ku xonq ku zóor jullit yéeféer mboolem doomu aadama yi yéen ñépp la sunu borom subhanahu wa taala di wax kan la yàlla bàyyi mais léegi da ngay gis lu doy waar da ngay gis ñu ne diw bokkul ci aadama moom bokkul ci doomu aadama yi de waaw diw kon lan la su fekkente ne diw bokkul ci doomu aadama te yàlla mu ne mbindeef yépp doomu aadama lañ aadama mooy seen bàyyi alxuraan dëggal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëggal loolu même yonent bi sax yenn saa nga dégg ay nit yu réer naan yonent bi sax bokkul ci doomu aadama yi ah kay yonent bi doomu aadama la alxuraan moo wax loolu aadama mooy maamam mooy baayam ci aadama mii la bokk bokkul ci keneen beneen bi yenn saa nga dégg ñu ne aadama yi dañoo bëri benn aadama doo nga am aadama yu bëri yooyu ana dalil bi xoola yonent bi la wax kullukum min aadama loolu kan la bàyyi wa aadama min turab yéen ñëpp ci aadama ngeen bàyyeekoo aadama ci suuf la bàyyeekoo jàngeen aaya bi ittaqu rabbakum ya ayuha nnaas ittaqu rabbakum allazi xalaqakum nafsin wahida wala ci benn bakkan mooy kan aadama yàlla moo bind aadama bisu ajjuma dëgal ko aljanna mu bàyyi ko ba muy nelaw mu daal di génne ci faaru gauche bi soxnaam mu tudd Hawa ci ñoom ñaar ñooñu wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa ci ñoom ñaar ñooñu la yàlla génne ay góor ak ay jigéen yu baree bari bil bidaaya ci njëlbeen Adama par ñaari doom lay am doom bu góor doom bu jigéen su amaatee doom mu nekk doom bu góor doom bu jigéen ñu daal leen di inversé ñu jël ku góor kii ñu may ko ku jigéen kee ñu jël ku jigéen kee ñu may ko loolu moo indi histoire Habil ak Qabil loolu moo leen indi ba Qabil dem rey Habil ndax bañ. seexam dem seeg beneen seex bi sunu borom ne yaa bani aadam e yéen doomi aadama yi imma yatiyannakum ci baat bi yàlla naan imma yatiyannakum foofu cosaanu imma bi inna la inna la moom moom lañ defaat foofu imma waaye cosaanam lan la imma inna la woon inna mu ne aslu imma inna ashartiya la charte la mooy yéen doomu aadama yi bis bu leen dikkalee charte la imma yatiyannakum saa yu leen dikkalee saa yu ñëwee ci yéen saa yu ngeen jotee xabaar dañ cee yokk maa bi li taqwiyatil kalaami ngir ñu dëgëral wax ji ñu daal di idgham nuun gi ci miim gi mu nekk imma waaye cosaan gi lan la woon inna la woon googu nga xam ne charte lay tekki borom bi tabaraka wa taala nee na su leen dikkalee su ngeen jotee xabaar walla mu ñëw ci yéen ngeen jàkkaarloog moom faas lan rusulun ay ndaw yoo xam ne minkum ci yéen lañ bokk gis nga moo tax adduna yàlla du fi yónni mukk ay malaak du fi yónni ay jinne mukk ay nit ne nun la yàlla di yónni ay nit rusulun minkum moo tax yonent bi mu ne man ci nit ñi laa bokk dama juddoo ni nit ñi di juddoo ma dund ni nit ñi di dunde lii dal nit ñi daal ma waaye maa gën ci nit ñi qul innama ana basarun mislukum mbindeef laa comme yéen wulida kama wulidal bashar ni nit ñi di juddoo da yonent bi juddoo xoolal yàlla indiw fi ay kéemtaan ñu naan gis ngeen Seydina Muhammad kay naan est-ce que yàlla da koo sànni paara mu daal di soo daal di naaw déedéet gars yi est-ce que sallallahu alayhi wa sallam déedéet paara wàccewu ko kenn parasise wu ko génnul ci biir suuf si génnul ci biir ndox mi amul benn malaaka bu ñu ko dugal enveloppe mu daal di koy indi ñu ne déedéet daa am non wulida kama wulida al bashar baayam bi mu matee am soxna dafa dem kër nijaayam ñu may ko soxna su tudd Amina mu nekk ak moom ni góor di nekkee ak soxnaam mu war a tukki mu dem tukki mu bàyyi soxna si mu ngi ëmb mu dem faatu fa mu tukki yaayam ëmb ko ni jigéen di ëmbe di daj ay coono ba mat jot mu daal di koy jur ni ñuy juree nit amul kéemtaan waaye fii da ngay dégg ne sëñ bi amoon na jabar waaye moom daaw leen jege danaan bind ay aaya rek su leen joxee ñu daal di ëmb ah ah aaya bu ëmbal nit bëgg ay kéemtaan waaw da ngay dégg am na ci bànd buy tasaaroo ci dëkk bi ñu ne sëriñ bi dafa dee ndaw si di ténj sëñ bi di jóge ci armée li guddi di fanaan si ci ndaw si ba ndaw si am ci doom doom bi barkeel am na wallaay ñeme woon naa leen wax turam imaginer loolu moo tax am na benn borom bu tudd Yunus mu ne yéen da ngeen a dof mu ne nit bu dee su jabaram ténjee jeex na sëy bi tas na mu ne bi muy dem dañ koo yóbbu woon ci armée bi bu muy ñëwaat ku ko indi sëy bi ku ko takkaat mu leen wax ndaw si dafa njaaloo rek ngeen koy suturaal naan doom bu am barke ku sa jëkkër dee nga mbar sa ginnaaw da ngaa njaaloo ñu ne doom ba am barke sëñ bi moo doon ñëwaat mu ne yéen yéen a dof néew dafa mën a ëmbal jigéen néew néew mais xel xel xel wax naa leen fi benn xutba xel bu jógee ci nit pare na man ñu ne laa diinu li man laa aqla la boo amul xel sa diina dem na perte nga luñ la wax nga ne dëgg la gis nga yonent bi noonu la juddoo ni nit ñi di juddoo ci sëy mu juddu maamam jël ko ñu laxas ko ay sagar jox ko maamam isaan mu kontaan mu ñëw wër kaaba gi juróom-ñaari yoon daan ne sammaytuhu muhammada tuddee naa ko muhammad ñu ne ko lu tax mu ne li yakuna mahmudan bayna samai wal ard ngir yàlla gërëm ko diggante asamaan ak suuf ah mu commencé nàmp ci yaayam araab yi dañ daan def bu ñu amee doom dañ koy yóbbu ci àll ba ci kaw ga ndax lan mu nekk jàmbaar ndax lan ndax mu dégg arab ndax lan ndax mu ñeme ndax waa kaw ñoo gën a ñeme waa Dakar nag d'accord ngeen wala ah waa kaw ga da ngay wàcc fii léegi benn àll deux heures du matin sa bët yi commencé xonq di taa benn booy ne ndeysaan benn enseignant moom ma ko nettali benn enseignant nee na dañ ko affecté Dakar dañ ko affecté ci àll bi mu jógee Dakar sa waay musul tukki sax dem dak Thiès nee na mu yegg si ginnaaw Tamba digganteem ak ville bi soixante-dix mille kilomètres nee na amul courant amul oto amul tëli bu ñuul nee na doo gis sax tëli bu xonk nee na mu egg si teg saakam dégg mbaa mi naan mu ne la fajar ba ñibbi fajar ba demi sonné lii waaye ñii dañ maa bëgg a rey moom ma koy nettal de nee na mu jékki-jékki asamaan bi xiin dënn yi commencé mu ne néeg bi mu nekk sàkket melex yi naan ciw bim mu ne xaw mu ne mu ne dama ne woon sax suba laay ñibbi waaye xaar ba mu sebet xaar ba mu sebet nee na mu jékki-jékki taw bi taw taw taw taw ba sebet mu ne xaaral ma génne léegi gis naa fii benn kii leer lumière dafa mel ni bitik xaaral ma dem jëndi jëndi sondel nee na léegi pour bu taalee sondel bi fajar moom anawa nee na mu ñëw mu fekk fa benn booy bu am 5 ans ci bitik bi booy bi mu ne booy bi yu leen fi booy mu ne maay jaay bitig bi mu ne yokk ana borom bitig bi mu ne dem na Dakar lu muy mu ne daa jëli marchandise bu dee kan moo fi nekk mu ne ko man loo jënd mu ne ko yàkkane fi nekk booy bi ne ko yàlla mu ne ko waa jaay ma sondel booy bi jaay ko sondel nee na mu ñibbi toog ci néegam naan waaw mais man booy bu ndaw bii toog fii man ponkal mi war a liggéey yor kër nekk fi naan damay ñibbi non du ma ñibbi mais booy bi lu ko rey ci bitig bi dina ma rey fii fii laay toog nee na wallaahi booy boobu moo defar dundam mais daa naroon bu gisuloon booy bi xoolal suba si dafa naroon ñibbi tey waa ji inspecteur la mais booy boobu moo ko dimbali dundam nee na mu ne booy bi yow kuy fanaan ci bitig bi booy bi ne ko man yàkkaan mu ne ko maag yàlla mu ne man kii mën naa koo jur moom kenn fii ci lu man maa ngi fii man ma ragal non mais nee na mu toog xolal mënul imaginer loolu nee na noonu la def noonu la résister toog ci dëkk ba toog ci dëkk ba toog ci dëkk ba ba tey jii inspecteur bu mag la gis nga moo tax doomu aadama fokk nga nangu jot mbirum yàlla tabaraka wa taala sinon rek da ngay sànku sa dund day yàqu sa dund day yàqu moo tax sunu borom ne yéen doomu aadama yi su leen dikkalee samay ndaw ay yonent rusulun muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la juddoo nàmp gis ngeen yaayam sax ay weer la ko nàmpal après ñu daal di koy joxe ci giiru saadiya keroog bañ koy nàmpal bokkoon na ci aada arab yi dañuy jël seeni doom yóbbu ci àll ba nàmpalkat yi ñëw di leen jël di leen yóbbu di leen nàmpal moom yonent bi keroog ndeysaan ba ñu yóbbee xale yi comme moom baayam dafa gaañu fameem seen loxo jotul ginnaaw xale yépp ku ñëw ci doomi patron yi lañ jël am na benn jigéen bu tudd Halimatu Saadiya bi mu ñëwee dafa tardé mu ñëw fekk xale yépp jeex nañ ñu ne ko ah, kii dee fi des te baayam daa dee ay mbokkam amuñu dara ah, moom dee fi des soo bëggee moo ngi nii ndeysaan benn xel bi ne ko jëlal benn xel bi ne ko kii doo ko jëlee lu mu lay yokk problème mu ne naa naa ko jël rek ndax rus naa dellu dëkk ba ku nekk indi doom man indiwuma mu daal di koy jël te ndeke nag moom la yàlla doon xaar allahu akbar keroog ba xale bi duggee loxoom keroog la xéewal wàcc kër ndaw si moo tax gëmewu ko woon gëmewul woon yonent bi moo tax ba mu gisee ba ko xale yi ñëwee ne ko am na benn waay bu jàpp yonent bi fële yor paaka ci montagne yi mu tiite daw ndeke boobu jibril moo doon xaar xolu yonent bi di ko raxas yonent bi raxas nañ xolam ñaari yoon moo tax nuróowul ak nun mu tiit moom xalima mu ne kii xaaral ma delloo ko ay woy juróom balaa ndogal di ma ci fekk noonu la delloo si yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu moo delloo si yonent bi jëlee ko ci xalima daal di koy indiwaat ci ci kan ci maamam Abdul Muttalib gis nga mu dund foofu métit yaayam nàmpalu ko loolu ay fan yu néew kan moo ko yar gisul baayam gis nga métit yi maamam gaañu Abdul Muttalib Aba Taalib yar ko gaañu allahu akbar yonent bi nekk ci problème nekk ci problème ba dem di liggéeyali Xadija di liggéeyali Xadija bal sàmm na commerce na xoolal li dund ñi di dund la dund yàlla indiwu ko nii rek pour di ko paqueteel ay ay ay ay ay ay ay billet CFA wala ay dollar wala di ko génneel ay nangam nangam déedéet yonent bi dafa dund dund gu doomu aadama yi dund amul fenn fu mu jaar ci ay mojisa ay kéemtaan nangam nangam fii comme yi nit ñi gëm tey nga xam ne sa waay koo fi wax ñu ne kii kii du lekk o ñaamata maaro o ñaamata day gis bi benn waay bu ñuy wane ci télé bi ñu ne kii du lekk day fen day lekk ba suur ku lekkul da ngay dee foofu lekk kii du lekk kii nangam kii lële kii du du nelaw guddi du dëgg kii du jege soxna yi du dëgg ay waxi kese la ñooñu ñëpp loolu ma wax lépp yonent bi moo fi gën te daf ko doon def sallallahu alayhi wa sallam parce que du gàcce ba gaa yi ne duñ takk jabar ñii ne ñun dootuñu lekk kii ne dootuma ne la guddi yonent bi ne leen eh man raxiba an sunnati fa laysa minni maa leen gën a ragal yàlla man damay lekk bu suur waaye dinaa woor damay nelaw guddi waaye jóg jaamu sama borom damay jege sama soxna yi su ngeen d'accordul ci li ma indi bokk leen ci man loolu mooy sunna yonent bi soo nee man du ma lekk waaye nga sunna yonent bi soo nee du ma am soxna waaye nga sunna yonent bi soo nee du ma nelaw guddi waaye nga sunna yonent bi te ku bàyyi sunna yonent bi alku nga mbokk yi samay ndaw dina leen dikkal rusulun minkum gis nga nekkuñu ay malaaka nekkuñu ay jinne nekkuñu ñeneen bindeef yoo xam ne yàlla moo leen di indi pour ñu waar nit ñi gis nga tey li garaaw ci doomu aadama yi mooy même fii rek borom xam-xam yu ndaw ndawaan yi ñuy góorgóorlu bu la gaa yi gisoon tey jii nga yor benn mburu bios doore rek eh subhanallah oustaz da nga lekk bios doore waaw da nga lekk bios doore ah yow da ngay lekk ginaar eh subhanallah kooku man dama dem kër kër kii ma ñëw fekk muy lekk ginaar ma ñëw fekk muy lekk salaat waaw léegi loo bëgg ah loo bëgg ñu lekk mislum rusulun minkum comme yéen la ci ci yéen lañ bokk dañoo am ndey ak baay comme yéen di lekk dëxin di lekk ceebu suul waaw comme yéen ñii minkum parce que doomu aadama yi dañoo bëgg ay kéemtaan diw du lekk diw du nelaw diw du lii diw du wax boo toogee ak moom nii rek xuj lay def nii dégg naa benn taalibe dafa ñëw ci benn sëriñ ni ko nii rek sëñ bi ne ko foo dëkk mu ne ñàkku rab mu ne ko yaay seen rab wax na ko dëgg ñëw rek xuj mel ni mu ne ko yow foo dëkk mu ne ko ñàkku rab mu ne ko yaay seen rab wax na ko dëgg lan la rusulun minkum chaque jour il faut ñuy bàyyi alxuraan baa di yàlla di utiliser pour ñu bañ a jël nit ñi di leen yéegal fu ñu yeggul loolu moo tax yàlla naan minkum ci yéen ñi lañ bokk suñ la nee yow nit ki ci yow la bokk ah yow looy def da ngay nelaw kon moom day nelaw da ngay lekk kon moom day lekk da nga am soxna kon moom day am soxna da ngay feebar kon moom day feebar da ngay yëg métit kon moom day yëg métit yonent bi dóor nañ ko ba mu daanu ñu damm bëñam ñu xuri oomam wala waaw yonent bi feebar na sukuraat sukuraat bi métti ba mu naan lan laa ilaha illa allah inna lil mawti la sakaraat yenn saa yi affaire bi métti mu ne subhanallah inna lil mawti la sakaraat allahumma hawwin alayya sakaraatil mawt méttit yaay Aïcha nee na maa doon jël morso di ko wañ di ko wañ def ko ci ndox wañ ko ba mu fendi ma muur ko ci bopp yonent bi tàngaay bi daf koy jàpp trois secondes mu wow ndax tàngaay méttitu bopp ndeysaan bal sax méttit da ko jàpp ba mu xëm fekk jàpp na ba pare wala julli mu xëm mu ximili ko mu ne asalan naas ndax nit ñi julli nañ ñu ne ko yow la ñuy xaar mu xëmaat mu ximili ko nit ñi julli nañ ñu ne ko yow la ñuy xaar waaw léegi mu ngi noonu léegi ñun nag ñu bëgg ay kéemtaan ay nit yuy naaw ay nit yuy génn ci géej ay nit yu am ay laaf kii kii du nit kii kii du nit su dul nit lan la du nit képp ku la wax doo nit xas na la lu tax ci sa gën lépp wa laqad karramna wa hamalnahum fi lbarri walbahr wa faddalnahum ala kathirin mimman xalaqna léegi nag ñu ne yow doo nit léegi yow lan nga léegi waxal nit ñi la la jinne nga wala malaayka nga mu ngoog rusulun ay ndaw yoo xam ne minkum ci yéen lañ bopp bokk yaqussuuna alaykum ayaati dañu ñëw di leen wax di leen jàngal di leen nettali samay aaya li ma bëgg ngeen def ko ak li ma tere ngeen bàyyi ko loolu mooy mission yonent yi mooy lan yaqussuuna alaykum ayaati dañoo ñëw di leen jàngal di leen nettali man yàlla li ma bëgg samay aaya loolu mooy mission yonent bi loolu mooy mission borom xam-xam wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi ya ayyuha rasul balligh bima unzila ilayka fa in lam tafal fa ma ballagta risalat allah yow yonent moo tax ku ne yonent bi dafa nëbb indi nga problème pourtant am na de lii ma yor yonent bi daf ma koo nëbbal te yonent bi war ta nëbb su ngeen jàngee téere tawxid boobu tudd tur durusul awal di ngeen fa fekk muy wax lan moo yell ci yonent ak lan lay lan moo jomb yonent fa man ittaqa képp ku mooy tandiku bokkaale wa aslaha mu yéwénal mu def lu baax ñooñu def loolu fala xawfun alayhim wala hum yahzanuun képp ku ragal yàlla mu jëfee santaane yi bàyyi tere yi wa aslaha mu yéwénal mu def lu baax ñooñu def loolu borom bi nee na fala xawfun alayhim noonu jarul ñuy tiit fa la ñu jëm alaxira wala hum yahzanun jarul ñuy jàq fii njaboot yi ñu bàyyi ak alal yi ñu bàyyi ginnaaw jarul ñu ci am njàqare fala xawfun alayhim du ñu tiit mukk fa la ñu jëm alaxira ndax lan inna allazina qaalu rabbuna allah summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaika alla taxaafu gis nga nit bu gëmee yàlla buy dee malaaka yi bu ñu ñëwee di ko rey ñaari assurance lañ koy tegal ci kanamam bul ragal bul tiit bul ragal fële nga jëm àjjana nga jëm bul tiit li nga bàyyi ginnaaw yàlla ci teg loxo luy dalil luy dalil boo fi bàyyee njaboot sax yàlla ci teg loxo suratu kax fi amal jidaar bu dee miir ba miir ba diggante Muusa xudar miir ba lan moo nekk ci suuf ah trésoru xale ya ana bàyyi xale ya ak seen yaay gaañu nañ yàlla jële Muusa ak xudar fële ci àll ba ne leen dem leen ngeen taxawaat miir bi ci kaw trésor bi xale ya ko moom bu ñu màggee ñu jël ko gis nga même boo gëmee yàlla sa njaboot yàlla moo ci teg loxo loolu mooy dalil bi kon nit dafa war am assurance fala xawfun alayhim wala hum yahzanuun xawfun alayhim fale alaxira wala hum yahzanuun fii ci dunia àdduna ñooñu mooy première catégorie bi yàlla yal nañ ci yàlla boole mu ne walladina gaa ya nga xam ne kaddabu dañoo weddi dañoo ngand ngandlu bi aayaatinaa ci sunu aaya yi yàlla lan la yónnee woon yonent yi pour lan yaqussuna aleykum xanaa tiimu leen ci kaamil yi yaqussuna aleykum ayaati fii mu ne walladina kafaru wa kazzabu aaya yaa ngoog ñi nga xam ne dañoo ngand ngand lu weddi aaya yàlla yi yàlla wax ñu naan waaye xoolal loolu ay sóob la quoi yàlla du lakk kenn affaire bi xoolal gis nga ëllëg batatatata tororororo na na na na na hee la ngay dégg fii waaye yàlla du lakk kenn ah yàlla dina bind ni di ko lakk xanaa xam leen doomu aadama sirru muhammad la bopp bi mooy miim gi biir bi mooy xaa gi dënn bi mooy dell gi gi kii bi xaa dem dellu gi toogukaay bi mooy miim bi ñaari tànk yi mooy daal gi loolu mooy sir soo demee ci armée yi sax da ngay gis suñ suulee nit ba pare nga gis ñu bind Muhammad ci kawam ñu ne loolu yàlla du ko lakk loolu de dafa wuteeg alxuraan loolu daa wuteeg alxuraan yàlla du lakk nit loolu daa wuteeg alxuraan la am la an na jahannama éggay leen aaya bi minal minal jinnati ah déedéet bu leen wax wan naas kay minal jinnati déedéet bu leen wax wan naas yàlla du lakk nit ah kon kay yàlla wax dëgg nag kon yàlla moo wax dëgg la am la an na jahannama la yàlla dinaa feesal jahannama mu ne keng allahu akbar yonent bi bu muy firi aaya bi nee na yàlla day feesal jahannama ba mu ne kek mu teg ci tànkam ba safara naan xattun xott xott yàlla doy na doy na doy na fu yàlla teg tànk bés ko subhanallah mbokk yi loolu yàlla na nu ump am na loo xam ne yàlla nañ ci dégg rek di doy sunu borom nee na ñi ngand ngandlu ci sama aaya weddi ko yemuñ ci weddi ko waaye wastakbaru anha loolu da ngay gis Sénégal ni koy dund nga gis ku weddi aaya ba pare di di du fi amee te weddi na ko ba pare de mais day taxaw di baare aaya bi naan loolu du fi amee waaw loolu kenn du ko fi defee waaye luy loolu ay yàllaa ko wax mooy lan loolu du fi amee laa wax loolu mun nga ci joxe misaal lu bëri bëri du jeex du jeex ci ay misaal ñoo xam ne dañoo wedd aaya ba pare waxuma ñu yem ci mais ñu ne du fi amee fii kenn du ko fi defee waaw ay dundu diine mooy lan ay sunna mooy lan lan mooy sunna waaye yow waay baay may la ñu jàmm waay yéen ñu jógee naan da ngeen di weddi mag ñi naan ay sunna ñaata yoon ngeen ko fii gis ndeysaan wastakbaru anha di ngand ngandalu yemuñ ci yàlla mu ne ulaayika ñii weddi sama aaya yi di ngand ngandalu ñii asxaabu naari ñooy waa safara li waxu kan la amul sax amul sax commentaire ulaika asxaabu naar lan lañ def ba nekk asxaabu naar ñaar lañ boole mooy lan al kasbu wal istikbar weddi ak ngand ngandlu di génne dënn ak di yëkkati baat waaw waaw yooyu saa yi nga dégg benn bàyyi ne waa ji ba mu ne assalaamu aleykum ci jàkka ji laa ko ne xeet bu ko fi waxee waaye dama ko dàq comme xaj nga dégg nit ñay reetaan alors ku ne yàlla nee na nga ne ko doo ko fi waxee yemu ci nga ne dama ko toroxal comme xaj subhanallah ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yéen a ma ko gën a xam ulaika ashaabun naar yemuñ ci bu yàlla waxoon nii rek doy na ndax safara moom musiba la waaye mu ne hum fiha xaalidun ñooñu ci biir safara la ñuy sax éternellement kan moo leen di génne ku yàlla ne yow ci saxara nga safara ngay sax hum fiha hum ñoom fiha ci biir safara ñu ne ah yàlla mu ne xaalidun fa la ñuy sax éternellement dootuñu génn lii lii ku mu tiitloowul lii ku mu taxul nga deltu ginnaaw lii ku mu ragal loowul mbokk yi ñun ñu toog fii yëpp kan moo ci ñun moo ci ñeme ñu taal beneen almet tiimale ko sa nopp ba beneen bi jeex yëkkati sa loxo kan ci ñun fi moo ñeme ñu taal sondel tiimale la ko ba sondel bi jeex kan ci ñun fi moo ñeme toog ci ànd bu ñu boyal ba pare kan ci ñun fi moo ñeme léegi nga génn fekk sa jabar di togg reer ci gaz bi nga ne ko teggil looy def mu ne damaa soxla gaz bi mu tegg nga dugg ci biir simi sa caaya ñëw toog ci gaz bi ku ko ñemee mu ne la looy def ni nga ne ko am na aaya boo xam ne moo ko teree du ma lakk allahu akbar cey bu sa soxna yéexee yuuxu cey bu sa soxna yéexee yuuxu cey boo toogee ci gaz bi allahu akbar mbokk yi xoolal loolu kan moo ko ñemee la ilaha illa allah am na lu ñuy xaar de yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko mbokk yi lii mooy darsa tey ñoo ngi jégalu njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu